wa radiyallahu an cheikhina wa wasilatina ahmad ibni muhammad ibni habibillah xadimi rasulillahi sallallahu wa alihi wa sahbihi wa sallam baad asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa bokki jullit yi bokki taalibe yi nga xam ne yéen a ngi baaxoo topp seen chaîne télévision bi nga xamante ne mooy GMT TV di télé bi nga xam ne moo nekk ci biir jumaa ju mag yi te waa daairatu muxaddamatul xidma di ko saytu mhm. eh, ni ñu ko baaxoo amalee nag ci ay jotaay ak yéen jotaay yoo xam ne lépp rek luy gën a xamle la bëgguk sëriñ bi ngir njariñ li nga xam ne ñun ñëpp moom la ñuy dabu si fi moom ñu mën cee jot ñuy baaxoo di wut lépp loo xamante ne luy tax ñun ñëpp ñu bokk jariñu ñu leen koy indil fii ci chaîne de télévision bi nga xamante ne moo ne ci biir jumaa ji tey jii nag ci waajal gu ñu waajal bis bu màgg boobu nga xam ne amuñ lu dul moom ndax suñu lépp ci la jege te mooy fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar di bis bi màndargaal tukkib sëriñ bi ci géej gi. waajal googu ñu koy waajal nag tax na ñuy dox ak a gën a feddali pas-pas yi ak di ko gën a soññ euh, ngir ñun ñëpp buñ eggee ca bis booba. njariñ li ñu ci sëriñ bi dëël ñun ñëpp ñu bokk ko mën a jariñoo loolu nag la koy jiitu mooy xam ni ko sëriñ bi bëggee ñu defee ko noona ndax loolu rek ca la njariñ nekk loolu nag dana laaj ñu dem ci koo xamante ne dana xam bu wér li nga xamante ne moom la sëriñ bi bëgg ci ñun ci ñu doxalee ko ci bis booba euh, ñu dékk ko suñuy nopp xerawlu te itam am pas-pasu lépp lu mu sotti rek ñu fas ne ko jëfee ndax loolu rek moo ñuy jariñ ñu ngi fii ci keppaaru Cheikh Abdou Samad moom Serigne bu mi nga xamante ne ñun ñëpp xam nañ ko ci Pastef ak bëgg sëriñ bi waaye itam bëgg mboole mbokkitaali bi yëpp bokk jariñu ci sëriñ bi te loolu ñun ñëpp mën nañ ko maase seede looloo tax ñu bàyyi ko fële ca jumaa ju mag ja ñëw ba fii si këram ci Madiana siis ngir taataan ci moom ay kàddu mu dénk mboolem mbokki taalibe yi ak fuñ mën a nekk di ñu seetaan ci ñi nga xamante ne bëgg nañoo màggal ak ñi nga xamante ne bëgg nañoo màggal si mm-hmm. ñoom ñëpp mu boole leen dénk nan la ñuy màggalee ak nan la ñu mën a def ba jariñu ci màggal gi nga xamante ne sëriñ bi moo ko woote. ci teggiin yi nga xamante ne moom la ñu war a sàmmoonteel ci dëkk bi. rawatina jumaa ji. waaye itam teggiin yi ñu war a sàmmoonteel ci bu ñu ziyaara. ndax yooyu yëpp lu ñu jàngale la ba nga xamante ne ñun ñëpp mën nañ ci jariñu kon sëriñ bi ñu ngi lay nuyu bu baax a baax. di la ziyaar bu baax ndokkeel ci weer wu màgg wi nga xamante ne mooy weeru safar. Eh, di la ci ziar bu wér a wér ñaan ñu egg ca bis bu màgg ba mm-hmm. eh, di sàkku rek leeral mm-hmm. mbokki taalibe yi mm-hmm. nan lañ war a màggalee ak kuy màggal si te bëgg a jariñu yan teggin la war a sàmmonteel waaleykum salaam wa ñoo ngi nuyu suñu bokki taalibe yëpp suñ mën a ne di leen ndokkeel ci weer wu tedd wi di safarul xayr di weeru sëriñ bi di nuyu tey ziyaara ak Cheikh Mouhamadul Mountakha mi fi toogee jataayub sëriñ bi di ñaan yàlla yàggal ko fi lool te wéral ko ba mboolem li mu yéenee liggéeyal sëriñ bi mu def ko ni ko bëggee te ñu ànd ko di leen sant bu baax a baax ci jéego yi ngeen dox defoon ngeen ko daaw. yàlla def na fekke waat ko ren yàlla nañ ko fekke at yu bëree bëree bëri bi ma ko farlu waxee laa ko ne amalu ma leen waxtu waxtu bi ngeen ñëwee baax na ndax yéen mm, da di liggéeyal sëriñ bi di ko liggéeyal ci la ko gënal tamay ñaan bokk ci yéen ndax sëñ bay tànn ña ciy bokk kon nag jumaa ji ak la ca aju du dukum neex def ca sab dërëm dukum neex liggéey fa sëñ bay tànn ña ciy liggéey ak ña ciy def seen dara kon nag seen daayira yi nga xam ne sàkk woon naa bokk ci membre yi tey ñaan sëriñ ba nangul ma ko bala maa wax dara dama leen di njëkk a jot li ak ngërëm ak cant cant googu it dafa dafa dafa jógi sama làmmiñ rek waaye dafa tàmbali si Mouhamadul Mountakha mi nga xam ne moo toogee ab jotaayam ak mboolem ñim seqal liggéey bi ci ay rakam Cheikh Mouhamadul Bachir mi yor kàddoom te muy dox seen digg moom ak bokk yëpp ndax loolee ngeen fay def nun ñi la waroon te bu ngeen ko defutoon noo ko war a def ndegem yéen a ngi koy def nag mu wàccunu war nañoo yëg ne yéen a ngi koy def yëg gi mooy lu ngeen ne ñu jàppale leen ca. te di leen sant te di leen bàyyi ak sëriñ bi am seen pay ndax pay gi mu ñu ko li ci des nag mooy nun ñu dëkkee Touba nu war a sant yàlla bu baax ci baax gi nu sëriñ bu baax ñu dëkk ak moom dëkk Touba nag dafa am loola war ci gan ñi ndax yàlla mën mënoon na laa boole ca ñay jóge fu ne di war di wàcc di yéeg ay montagne ak i tund ak i xur ñee di dugg avion ñee di dugg ay saxaar ñee di war fas ngir rek ñëw tuuba màggal si màggal gi. Mm-hmm. yow yàlla def nga dëkk ak sëñ Touba. Mm-hmm. te loolu di jagleeg boppam koo xam ne sëñ bee koy jagleel nit. Mm-hmm. tawfeex jooju nga am ba dëkk ak bi nag gan ñii ñëw ngir màggal si yow fasali yéene buñ tumuraanke ci dara. na ngi leen ubbil say néeg ubbil leen sa kanam berndeel leen. yaatal leen te sëriñ bi rekk tax kenn ku ne butikee sa kër ba këram muy dem lu këram neex neex nanga nga fexe góor góorlu ba mu dax këram bernde nag mi ngi tàmbalee ci kanam ubbi sa kanam di ree di belli di bëgg ba mu xam ne yaatu nga yàkkamti nga ko te bëggoo mu dem diir lu mu fi ne nga fas yéene di ko bégal te di ko yaatal ba keroog muy dem loolu moo war ki dëkk Touba kii ñëw na xam ne pas-pas bi ki dëkk Touba am rek ngir gàttandu gan ñi ak ganale leen ak toppatoo leen pas-pas boobu la war a am moom buy ñëw xam ne bu newoon Touba lii da ko war kon moom ana ko war mooy yëg ni mu ñëw ci dëkk boo xam ne yaakaaram jëpp génnu dëkk bi kon bu duggee biir dëkk bi rek na jàpp ne siñ Touba ngi ne jàkk jëmmam ji di ko xool lépp loo xam ne bu ko Sëñ xooloon du ko ñemee def mbaa du ko ñemee wax bu duggee Tuubaa bu mu ko ñemeeti sëriñ Afiya mii di jiite ci jumaa ji maamam sëñ Afiya Busa nga xam ne mook soxna aw Busa waajur sëñ Fallu ñoo bokk lépp bokk ñi sëñ bi njëkk a tërbiya ca Tuubaa jëkk ja yoon yu door a sosu te bu doonu bokk rek sëñ Busa bi mi ko jur mook soxna jaara bokk lépp waaye xam xam Touba ni mu toll ak xam darajey sëriñ bi àgg na ci mbal la daa summi dàllam mbal te mooy nijaay sëñ fan naa li jéggi sëñ bi lépp doo bi sori dal sëñ Mbàkke bu mi nga xam ne bu ñuy wax naan day bu kenn doon xam sëñ bi ñu ne moo ko xam wala moo ko gën a xam ñu bari bokk ci teggin bu ma saa jógee gerte di siyaare sëriñ bi fii sooraar bi nekk lay yem mm-hmm. day wàcce karoot gi ca fa tolloog kër Abdou Khadir ak tànkam ba egsi fii fii fii soreet bi ne foofu lay toog siyaare du egsi ci barab bi sax ndax war ma góob maam Cheikh Anta mi nga xam ne xëy jub sëriñ bi ku ne xam pas-pasam ci sëriñ bi ak lu ko bi jaral jóge na gerte ci sëriñ Mbàkke bu sa di del Daaru Salaam dikk ba toll ak daari kaamil ci fii Cheikh Abdoul Ahad ne mu ne oto bi taxawal ma siyaare sëriñ bi oto bi taxaw daal di ubbi bunt bi wàcce tànk bi ci suuf bañ a daal wàcce tànk bi teg ko ci suuf si. ab diir ñu defoon day wàcc mu dugalaat daal di ubbi oto bi lii sax ëpp na ci ñi koy ñooxu dañ koo xam rek waaye lii sax ëpp na ci ñoo ñoo xamoon sëriñ bi. ñoo ñu ko ko gën a xam gën ñu koo jege noon lañ jàppee woon sëriñ bi. nekk nag sëriñ bi laat du yàgg mosuma gis daanaka mu dugg ci biir barab bi. gàmm ba la koy siyaare te ca wetu penku ga lay toog jàkkaarloog moom. sëñ Usmaan bi ànd na maag moom guddi ba tàyyi muy siyaar barab bi waaye da koy wër rek bu tolloo kër sëñ lu fi lii dina mbaxanaam a kaalam wër wër ko ba mu àgg wax li muy wax daal dem waaye du dugg ci biir sax waaye léegi nag ñi nga xam ne dañoo ñëw ngir barkeelu si ci sëriñ bi wut si lu baax nañu góor góorlu ba amee ko fi tey mooy ko nag far ñàkke lu baax la nga amoon sax far nga ñàkk te lu mën a am la ndax orma rek moo koy maye orma teggin ju ànd ak war ma rek mooy may nit ki mën a ñëw siyaari sëriñ bi tibbe fi loo xam ne bu demee bokkam yëpp mën caa jariñu te du jeex waaye noonu it lañ fi mën a yàqule ba faaw sëñ bi sëñ bi war ma rek bu ko defee nag boo duggee dëkk bi rek jàppal ne sëñ Tuubaa ngi lay gis rawatina boo duggee ci jumaa ji xam ne ngay tooge xam ne ngay waxe mm-hmm. bu nit dendeeg yow te xamu ko yit ba dëgg laa bëgg laa dugal ci wax joo xam ne barab bi du waxam yow noppil te bul wax sa loola dara sàmmal sa bopp bu mucc rek kenn ku ne bu sàmmee bopp bu mujj rek mucc rek ñëpp mucc bari na yéen ñuy dugg ci jumaa ji di ci boole yoo xam ne dafa xew rek waaye kenn mu mënu ko andil benn benn benn att ci lislaam wala ci yoon wi sëñ baa ngi fi tëdd wala moom na fii lañ ko mu gisee yow exil sukk say tànk jublu penku li nga xam ci lu baax lépp nga jàng ko ci alxuraan wala xasida jox ko ko addiya naka nga xam ne sëñ bi doyal na yiw waaye ba mu ne ci addina kër gi day fees dell ak alal waaye ki koy jox addiya du ko du faale alal jooju day dikki lam amagu su néew sànni ko dama yoon ndax xam ne jox gi mu ko koy jox ci la mën a jariñoo yow li ngay jox sëñ bi bul jàpp ne dana ko jariñ lu am solo ndax fees na dell la yiw te mooy jëriñ ñëpp. waaye mënu ko ñàkk jox addi kon jàngal sa Faatiha mm-hmm. sa fukki Ixlaas ak benn mm-hmm. jàngal sa Wakaana Haqqan mm-hmm. jàngal suuratu Yaasin loo mën rek jox ko ko addi na nga xam ne bu doon ci saahir nga di ko gis da ko jox addi noonu nga ko joxe wëlbatiku nag ñaan sa borom ci dara jaam def tawassul ci sëriñ bi ñaan sa borom ci dara jaam li nga soxla lépp mu defal la ko noonu si ñuy waaye nag di dugg ci biir naan ni di seet bant ba nga xam ne ab bant ban bant rek la buñ fa def bu yàggul rek lañ ko fa monté balaa ëllëg ñu dindiwaat ko fa bant boobu nga naan nii di ko di ko di ko dàkk jàpp ne boo ko laalut wala mbir la muñ fa santaane kenn santaane wu kenn na ko njëkk a def rek ñu di ko roy ma fa bëgg a jàll du dara te lor la lañ ciy jëlee waaye duñ ci jëlee njëriñ yow kii nga jëm ak guuf muy sëñ Tuubaa looy seet bant mu ne fii di ko di ko di ko ko basaka laalaka naan mel ne boo ko laalut siyaare bi du àgg foofa luñ fay laal amut luñ fay raay amut sëñ baa fa ne ku dikk àggal suuf bañ wax dara noppi teewlu sëriñ bi xam ne mi ngi lay gis loo xam jox ko ko addiyee te ñaan ko la nga bëgg ñaan yàlla mu defal ko ca barkeem attan na lépp mën na lépp noonu rek la ñu ànd bi néewal wax ji néewal yëngu bi te xam ne sëñ baa ngi lay gis te kenn ku ne nag na ko natt ci bi gisoon la nga xam ne du ko ñeme wala du ko ñeme wala du ko ñeme def rek mu xam ne sëñ baa ngi koy gis bu baax a baax sa la mbooloo mi bari bari rajal jo bi kenn ku ne sëñ baa leen a jàkk loolu mu woon sama boroom may na ma sama tayri bi yëpp bu ñu ànd woon faatandoo senn saa yàlla may na ma matal na ñoom ku ci dugg ci biir bàmmeel ma fekk dafa nangul la tontu la saw lay loolu yéen nga xam ne màggal gi li muy xumb xumb xumb murit bu ne fa nga toog di teewlu sëñ bi sëñ baa ngi leen ne teg di la gis ak bëtam waaw boo sellalee rek mu nangul la kon nag màggal gépp ay teggin lañ ci soxla màggal war warma lañ ci soxla góor ñi nañ teg lu góor war a sor sol di def lu góor war a def jigéen ñi itam di sàmmonteeg col yi nga xam ne moom la jigéen war a sol te bañ a góor ñi ci seenum col ndax loolu dëgganut te yëllawut ak barab bi tañ ko téléphone yi ñu topp ba far duñ siyaare kenn ku ne ñu di la war a teewlu sëñ Tuubaa naan foto ma foto ma ci barab bi ñu di la foto ba far tëlatoo sëñ bi nga xam ne da nga fay nekk bu jógee fa doo teewlu sëñ bi loolu pexe seytaane képp nañ koy moytu lu waay bëgg-bëgg xuma xuma sinap la xuma lan yi yëpp day fees dell foofu te yëpp pexe seytaan rek la seytaane bari doole rek lu waay mën a def bu jub sëñ Tuubaa war koo teg fee te teew na xam nga egsi nga nag waaw léeg-léeg sa yaakaar tey ak mu ngi nii dafa caaxaan yëpp teg ko fe waaw te nag maa ngi dénk mboolem koy màggal si nag nga déglu nag mboolem waa daaira muqaddamatul xidma ña fa ne dañoo bàyyi seeni kër màggal gi li muy neex neex dañoo batal lañ fa war a def bàyyi ko fa dikk toog di liggéeyal Sëñ Tuubaa ci jàkka ji kon kuñ wax dara na nga xam ne Sëñ Muntaxaa la ko wax ndigal Sëñ Muntaxaa lañ am kenn ku ne ci ñoom la muy santaane sëñ bee ko santaane lam lay tere sëñ bee la ko bul xeeb kenn wala nga defe dalaa yëpp wala nga defe ne dara kii li ko fi tax a indi li ko fi indi mooy la indi Tuuba ndigal li tax mu bàyyi këram ñu ci jumaa ji mooy la tax nga bàyyi sa kër di ñëw wut sëñ bi rek loolu rek loo tax mu bàyyi këram dikk di toog di liggéey ay téeméeri téeméeri nit lañ yoo xam ne ku ne nag ay ñii ay doomi soxna la ñii ñu jege sëñ bi lañ ñii ñii fi ñëw ñii rek bokki sëriñ bi lañ waaye kenn ku da ngaa bàyyi la nga am lépp ngir sëñ bi bàyyi sa màggal loolaa gën a métti lépp kon nag bu ci kenn juyee ak ñoom ci dara luñ leen digal nañ ko def luñ leen tere nañ ko ba te fonk digli kër docteur it na ko waxee woon sàmmonteeg moom bu baax ngir xam ne dañoo nekk suñu nawle ci réew mi te ñu ngi nuy xool dañoo nekk noonu lislaam it ca bitim réew te ñu ngi nuy xool te bëgguñ lu ñu rey yoon bi bëgguñ lu ñu lu ñu ŋàññi lislaam kon nag li ci li ci waru garu ab jullit te mooy wakkiilu ci yàlla ak def sabab nan ko def yàlla moom mooy faj tawat mooy wëral moo indi tawat moo indi jàngoro moo indi li koy faj li ci des sababu zahir képp la te loolu sëñ bi dañoo digal nañ ci góorgóorlu ni ko kër docteur diglee nañ sàmmonteeg moom bu ñaan nañ takk masque nañ ko takk màgg na kenn ñëwu daan dañuy soree loolu moom xel xalaatu ko mënu su waaye nag la nga man mooy sa kem kattan la ci kër docteur digli lépp def ko la ci des nga bàyyi ko sëriñ bi ñun sëñ sëñ bi nuy faj mooy lépp waaye lii dañ koy def ngir ndigal ndax sàmmoon teg li sëñ bi bëgg ñu def ko ba kenn dootu mën a jam loolu rek la kon nag noo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp dañaan ñëpp ñëw ak jàmm nag sëñ bi gàttandu leen ñu fekk fi jàmm dellu ci jàmm bàyyi noog jàmm fekkaat fa jàmm wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu jërëjëf jërëjëf Mbacke ci leer na leer na naan wax dëgg yàlla yàlla sunu borom doole yàggal bu baax a baax ba li nga bëgg a liggéeyal liggéeyal sëñ lépp nga liggéeyal ko ni ko bëgg a ci baaxuk sëñ Tuubaa gi soññee bi day mel ne ñi ci war a jël seen wàll ñëpp jël nañ seen wàll te mooy ñiy màggal si ak ñi ñuy fekk si ñi ñuy fekk si waajtaay bi war ci gan gu ñëw ci sëñ te eh, teralee leen dal fa ñoom ñu war koo teralal sëriñ bi ñoom itam ñu xam ne ganuk sëñ la lañ yor lépp luñ ko war a defal ca teraanga ñu bañ cee yéem dara waaye ñi nga xam ne ñooy màggal si itam barabi ziar yañ jëm te jumaa ji gën cee ràññeeku ñu bàyyi xel ne fa la seen yaakaar yi tey ak bu ëllëgee nekkee te fépp foo war a defaroo moom di sàggan ba yàqoo fa da nga da nga dul xamati fan ngay jëmati kon ku fay ñëw rek mu bàyyi xel bu baax a baax ndénkaan yi nga xam ne sëriñ bi wax na ko te mu matale sëkk buñ ko jëfandikoo rek lépp lu ñuy wut ci njariñ danañ dajeek moom te yàlla ñu yàlla defal ñu egg ca mm, bis bu mag baak jàmm te defee ko ni ko sëriñ bi bëggee ndax buñ ko defee ni mu ko bëggee rek lem ñu dig lépp danañ ko am ndax Sëriñ Tuubaa du koy naxe wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.